mi amut kon ñu ngi koo ñaanal ci loo la yal na ko yàlla saxal ci loo la ñu ngi koy ñaan nag lii nii boo gisee ñu jóg ñu ñëw comme ni ko eh, chef bi ak gouverneur bi waxee bugguñu dégg loo xam ne kàddu boo xam ne bu ñu naqari la ci moom moo tax mu jóg ñu jóg ñu ñëw waaye li koy wéralal kaddu yooyu dañ ñun dégluwuñ ko de waaye nag bugguñu koo déggaat moo tax ñu ñëw pour ñaan ko ngir ya mi nga xam ne yàlla mi nga xam ne moo yore yërmande parce que yàlla moo ñu ëppa ñun ñëpp yërmande moo ñu am ñun ñëpp moo ñu binda oppa ñu yërmande xam lan moo ñu war ak lan moo ñu warul moom moo wax ne ku rëy nit nañ ko rey kon kay ñun gënuñoo bugg a yàlla nit ñi parce que moo ñu sàkka ñun ñooy bagaasi yàlla kon yàlla su waxee loolu keneen bugg a ñëw ne loolu du lu jaadu boromam dafay wax lu ko neex rek kon ñu ngi koy sàkku waaye ci kaw loolu yëpp yërmandeem ñu ngi koy ñaan ci yàlla bugguñoo déggalu naqari ci suñ noppa ci wàllam ñu ngi koy ñaan li nga xam ne loolu li xew xew na loi bi moko def waaye nak su ne dina manu ñu koy ñaan mu oyofalal loxoom bañ seeti assalamu alaykum wa rahmatullah dina o alkali Basiru jalo. pour momit it de ci si ñu ngi nuyu soxna ci vice aja ay Aïssatou ndjay Seydi ak ministre ci vinakalib gannaaw bi ñu sante yàlla jul ci muhammad sallallahu alayhi wasalam ci may gi ñu yàlla may njiit bu mel nii lii niñ ko war a santee yàlla mooy ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne xeet bu nekk ni ngeen mel noonu la yàlla falee buur si seen kaw su ngeen nekkee nit ñu baax yàlla buur bu baax la leen di jox bu am yërmande si yéen kon su ngeen demee ba am njiit bu am yërmande na ngeen ko sante yàlla te na ngeen am yaakaar ne seen diina ji it yàlla bugg na ko ni ngeen koy doxalee euh, chairman wax na fi kàddu bu important ne président da fay ñangal ci wax way du ñangal si jëf ñu ñëpp sélu nañ loolu man bi gaay yi démé ci mom su julli bi bamuy wax déglu na waxam bi yëpp ba jeex dégg na ci li moy wax ne moy ñenenti at ci gannaaw démon nañ ba wax li ni waaye boobu ba tey defu ci dara dee gaa ngee yokku dem na benn di rey ndeyam de ndig daf ko tuumal ne duma la nit dem ba nga xam ne mu ngay rey nit jabaram pour saaku maalo walla ak yeneen ak yeneen waaye booba ñiy wax nii léegi xamoon nañ ne ku rey ñu rey la mu ngi ci constitution bi lu tere woon ñu taxaw ne constitution bi dafa am lu ci nekk loo xam ne jaarul yoon nañ ko fa génnee waaye waxuñ ci woon loolu ñu continuer saa yu dee amee fii ñëppay tiit ndig loolu dafa tumaranke ci Gambie fii rey mbiri rey dafa tumaranke ci Gambie fii ndig suñ xol yi dañ fees ak islaam te yàlla bëggul rey yàlla bëggul rey ci alquran yàlla dafa ne wa man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasaadin fi l ard fa ka annama qatala naas jamia benn nit soo ko reyee koo xam ne reyut nit te defut mbiri crime defut benn crime ci boo xam ne dafay yàq société bi nga rey ko looloo ngi mel ni yow danga nga rey àddina bi yépp kon yàlla bëggul ko rey nit kon président li mu wax nii mbir la boo xam ne dafa ànd ak constitution bi waaye dafa ànd ak suñ diine kenn mënu ko wiiti li yàlla wax ci alquraanam bi charia wax ko ba euh, nga xam ne nit ci boppam moo ko wax ñu def ko ci loi mu tombeek charia bi ndi xel yi nga xam ne xel yu xel bu bu bu bu mut yëpp yëpp ay benn kon lu bees ñëw fi lu bees amu fi li xew kay mooy ne dañooy ñaan président comme niñ ñaanee ni nañ xaaral waaye lu bees amu fi lu war a am mooy li am képp koo xam ne mu ngi wax ne tey ne lii amut wallaay dañ reyu sa doom wala reyu sa jëkkër wala reyu sa jabar ku nekk si ñun tey fii mu ngi bàyyi njobotam ñu fi ni yalla téré kuñ fi téye reuy information bobu su excès sa bir famille sa gnaaw naka la fay mel yaangi xaron xaaroon bu dem mu ngi del wara delu ci wala ya ju dem mu ngi wara delu ci ñu dem reey ko ci neen borom du wax li kon nak li ñoy wax président rek ñu koy ñaan xoli bi yërmande bi am ci Gambia biñ commencé ba tay ci bobu lañ koy ñaan rek ñu di ko won ni ñaanee wuñ ko ne pour ne euh, lim def gisuñ ne dëgg la de na xam ne ñun ak moom la woon démb ak barki démb te ñun ak moom la tey ak ëllëg àddina bi luñ ci wax ñun faale ñun fii lañ am képp ku fi génn fii soo demee foore na lañ laa ooye ci dëkk boo munti dem kon Gambie bii lañ am bii lañ doon na suñ maam la suñ bàyyi doon na suñ maam maam yi bii la suñ doom yi di doon na suñ loxo ëllëg kon lépp lu koy yàq duñ ko fayee de te képp kuñ gis ne dafa taxaw jël action pour liggéeyal Gambia bi ñun dinañ taxaw téele la jàppale la ba abadan dinañ taxaw ak président jàmme tey ak ëllëg comme niñ taxawee moom dépp di ko ñaan mbir mi e eh, alhamdulilahi rabbil ni ko mag ñi waxee ñi paase paase nañ ñooñu dañ jël seen jaza lañ jël liñ def loolu lañ leen fay ñi ci des it ba tey ñu ngi koy ñaan ci yërmandeem rek mu xool doon ba ñu seetaat suñ constitution moom defu ko ñun ñoo ko def ku nekk si ñoom su fekkee ne bàkkaaraan ci ñun ñëpp a ko boole def ndég ku nekk si ñun yees la sànni woon ñi ñi nag ñi ci ñi gën a bari ba loi bi dem kon léegi ñun ñëpp ñoo ko bokk def léegi li ñooy ñaan na fi téye loxoom Eh, ñu ngi ñaan yàlla yàlla ko fi yàlla yàggal. amiin yaa rabbi. yàlla ko fi yàlla yàggal. amiin na si Gambie nag fu ñoo wax ne liggéey na lii wala liggéey na la lii ku liggéey lu tuuti lañoo ñoo compté waaye nag loo xam ne danga li nga liggéey moom bët mënu koo daj kan du ko conté yàlla ko fi yàlla yàggal te wér jaahi nabi muxtaar allahuma salli ala sayyidina wa sallam léegi lu ma def mooy dinaa oo sirif sirif wasa haydara pour moom it mu waxtaana mbooloo mi aouzu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim tey su ñëw fi rek mooy gërëm président docteur Alhaji Yaya Jammeh njëriñ lim def ci réew mi wax dëgg yàlla ku def lu baax ñu wax ko ndax yàlla